jaay boo dee gàttal ay ponkam da ngay wax ñett la aji fas njaay ma boo ko waxee day yóbbaale kay jaay ak kay jënd nga jàppee ko benn tomb ak la ñuy fas njaay ma ci moom maanaam rek mooy la ñuy jaay ak jëndante muy ñaar nga boole ci nag waxin wa mbaa defin wa nga xam ne ca la ñuy xam ne ñoom ñaar ñii am nañu déggoo ci jaayante gi ñu koy tuddee ci arab asiratu ñu wax arkaanu bayri talaata al aaqidu wal maaquudu alayhi wa maa yadullu ala rida wala nga ne wasiratu ñetteele ko dafa tàmbale nag ci wax nañuy jaayante ba yoon jàpp ne ñaar ñi jaay dox na seen diggante loola mooy lu ñu waxante ñoom ñaar bañ xam ne am nañu déggoo ci jaayante ga mbaa sax waxuñu waaye dañoo jëflante kese mbaa sax waxuñu waaye dañoo jëflante kese ci jëflante ga rek daal nañu xam ne ñoom ñi am nañu déggoo loola daal nay doy mel na bu ngeen waxaalee ba juboo ci ak njëg xolam sedd saxol sedd ngir am déggoo moom a njaay fasu na ba tey nag boo dikkoon xam ne almet juróomi dërëm lay jar nga tiim ko ci comptoir bi kii jaay di la gis nga teg ci loxoom juróomi dërëm daldi yëkkati benn almet dem waxoo moom itam waxut loolu jëflante kese la waaye teewul xame nañ ci ne am doonuk déggoo ba tey njaay ma dal nay wér jëmm ji nga xam ne mooy jaay wala kay jënd dañuy sart lu néew néew bu amut xàmmee ab dof boo xam ne xamul dara wala ku màndee màndi ba nga xam ne xamul dara wala sax mu gonee gone ba nga xamee ne xamul dara ñooñu buñ jaayee du baax buñ jëndee itam du baax su gone ga àggee nag ci buñ ko waxee mën a tontu xam lañ koy wax nga xam ne am na xàmmee bu wér kon bu jaayee mbaa mu jënd jëmmi jaay ga mbaa jënd ga wér na waaye nag warut biñ ne wér na mooy kilifaam bu dikkee te wéyal ko mu wéy bu ñu nee jaay googu taxul muy lu war nag mooy kilifaam bu ñëwee te bëgg koo tebbi yoon ne ko sañ nga koo tebbi ba tey it kay jaay mbaa muy jënd na nekk mu kàllaf kon nga weesu léegi ak jaayam mbaa jëndam mën naa baax ci kaw bu amee xàmmee waaye nag lu tax njaay ma nekk lu war ni ñu ko waxee woon léegi bu kilifaam ñëwee rek mën na koo daal di dindi kay jaay mbaa muy jënd itam na rafet nu mu yore alal bu dee yàqkatu alal boo xam lu mu am rek dal koy toppi bakkanam ku mel noonu bu dee ci yoon dañ koy boole koo xam ne moo koy jaayal ak jëndal duñ ko bàyyee alalam kooku nag bu jekkee jekki jaay mbaa mu jënd dañuy bàyyi ba kilifaam ñëw bu kilifaam ñëwee te wéyal ko mu wéy bu ko dindee itam mu deñ lay tax nag njaay ma nekk lu wér te war boole ca nga xam ne ñoom ñaar sax kenn suñ caa jekki-jekki ni génn naa ci njaay mi lu may sa moroom dalaa may loola mooy ñoom ñaar kenn ku ci nekk mu kàllaf nga mu mën a yore alal nga xam ne amul lenn lu ñu sikk ci ni nga yore alal koo xam ne mu kàllaf la rafetuk soppandiku ci alal te kenn forcé wu ko ci jaay ga mbaa jënd ga ñoom ñooy jëflante ci jaay jënd bu ñu demee noonu ñoom ñaar ñëpp jaay ga ak jënd ga dal na nekk lu wér ba noppi war boole ca war ga mooy kenn ci ñoom ñaar suñ ti jekki-jekki ne man génn naa ci njaayante mi te moroom ma mayu ko loola jëmmi lañuy jaay mbaa la ñuy def njëg dañuy sart muy loo xam ne bu ñu waxaalee ba juboo ka ko war a joxe mën ko yëkkati joxe waaye la ñuy jaay mbaa la ñuy jënd bu doonee lu réer mbaa lu ñu sàcc nga xam ne xamuñu ba xam danañ ci jotaat mbaa déet lu mel noonu sañe su ko jaay sañe su ko def njëkk dañuy sart ci la ñuy jaay mbaa la ñuy jënd mu bañ a doon loo xam ne yoon dafa aay ku ko jaay mbaa ku ko jënd mel ne xaj wax ja gën a wóor mooy xaj bu ñu ko jàngaloon ba mën ko yónni mu dem ak dikk mbaa ñu defar ko ba man di sàmmi di dellu si jur ga ak yu demee noonu du tax ñu sañ koo jaay ndax addis ba dafa aaye ku jaay xaj ne addis ba dane nuhiya an bay'il kalbi wa mahril baxiyi wa xulwaanil kaahin dañuy aaye ku jaay xaj jigéen joo xam day jaay boppam mooy di njaaloo ba noppi am lu muy laaj ca njaaloo ga loolee muy laaj ca njaaloo ga muy alal lu araam la ci moom njaaloo ga dafa araam lu mu cee laaj ci xeetu alal rek araam ak jabar boo xam ne day gisaanee ko wax ay kumpa moom it lañ ko cay jox lu araam lañ koy jàppee teewul nag am ñu wax ne xaj moom buñ ko defaree ba man di ko sàmmloo mbaa ñu koy rëbboo ji ci àll ba mbaa ñu koy wattuloo kër mbaalu ko nuru moom wóote naag xaj yi ba manees na koy jaay waaye daal li ëpp ci borom xam-xam yi dañuy ànd ci sañee su ko jaay ndax noonu mu ñëwee ca addis ba dañuy sart lañuy jaay mbaa ñu koy def njëg na doon loo xam ne yoon nee na lu laab la fekk na nag waxoon na la ci gannaaw yan ñoo laab ak yan ñoo nekk sobe lépp lu ñu waxoon ne sobe la rek dañuy aaye ku ko jaay mbaa ku ko jënd waaye nag daañu maye neefare yoo xam ne sobe la ñu jaay ko ndax ñu tose ko maanaam ñu sotti ko fa ñuy bay ndax suuf sa baax ba buñ ca bayee mu nangu loolu ak jàpp ndal la mel ni neefaray fas ak neefaray mbaam ak lu mel ne neefaray baax la muy berkeel yooyu yëpp sobe la waaye daañu may ku ko jaay ngir loolu wala sax loo xam ne nekkutoon sobe waaye sobe da caa dem jaxasoo ci ba mëneesu koo tàggaleeg moom mel ne lañu waxoon ne mboolem xeeti ñam yi woo ci xam ne dafa ruuy maanaam nekkul ñam wu dëgër bu ca sobe suy xelli ku demee maanaam sobe soo xam daal moom it dafa ruuy bu ca demee woowa ñam moo xam lu ñuy lekk la moo xam lu ñuy naan la doomi aadama mënatu koo jëfandikoo lu mel noonu kon kenn du ko sañ a jaay man ngaa takk ne kon lu yoon ne sobe la mbaa yoon ne sobe dem na ci ba sañe su ko jariñoor ci genn wet loolu kenn du ko sañ a jaay sart ba ci topp mooy lañuy jaay mbaa ñu koy def njëg day doon loo xam ne yoon nangu na ne am na njariñ loo xam ne nit ñi jàppe nañ ko muy lu am am njariñ xëy na sax bu dee ci ñoom ay million lay jar dik am na xeetu jumtukaay po yoo xam ne dana jafe lool lool waaye bu dee ci yoon yoon day jàpp ne mboolem xeetu jumtukaayu po yi amuñu benn njariñ kon xeetu jumtukaayu po lu mu seer seer yoon day jàpp ne du dara jàpp ne it amul njariñ du nangu ku ko jaay du nangu ku ko def njëkk bul fàtte ne bañu ne lañuy jaay mbaa ñu koy def njëkk bu mu doon li yoon tere araamal ko bu mu doon sobe xamal ne sàngara duggoon na ca ba tey bu dee léegi ci sayo boo boole ci cigarette sikaret yooyu ñu bari ak araamal lañ ci wax léegi nga xam ne kon day mel ni sàngara kenn du ko sañ a jaay kenn du ko sañ a jënd xeeti sikaret yi nga xam ne bokkut ak yàmba nga xam ne daawul bàndal daawul def dara am na jamono yoo xam ne daanañ ca wax ay wuute waaye léegi daanaka ñëpp ci ñi ubbee dañuy wax ne sikaret boobu lu araam la ndax gis nañ ne bokk na ci joxe cancer kon nag yàq alal ci loo xam ne amul benn njariñ te da cay boole xañ nit ki ak dundam mbaa xañ ko lu néew néew bokk ak wéram loola kon ak araam lañ ciy wax moo tax ñu bari daal buñ dee ubbee dañuy wax ne cigarette lu araam la dañoo jëlale nag yàmbaag ya ko féete ko waaye cigarette ordinaire bi ñu xamoon rek lañ wax dañuy sart lañuy jaay ak lañuy def njëg mu doon lu ñu xam biir ak bitti xam fa mu tàmbalee xam fa mu yem duñ nangu ñu jaay loo xam ne dañ ko umpale dañuy sart lañuy jaay ak lañuy jënd dañ ko xam bu wér a wér àgg na ci sax bu fekkoon ne xamoon nañ ne moom bele bi lay jaay wala tàndarma ji wala darkase ji waaye da koy natte nattukaay boo xam ne miinuñu ko ba xamuñu buñ ca nattee ba mu fees nu muy toll duñ nangu kenn ñëw rek mu ne ko looy jaayi lii mu ne ko nattukaay bi bu feesee moom laay jaayee fukki dërëm mbaa ñaar fukki dërëm xam nañ fukki dërëm xam nañ ñaar fukki dërëm waaye ndegam loolee muy natte miinuñu ko ba xam buñ ca nattee ba mu fees nu muy toll loolu ak umpale la dañuy sart nañ xam bu baax a baax la ñuy jaay ak la ñuy jënd bu dee lu ñuy peese ñu xam buñ ca peesee poids bañ wax nu muy toll bu dee lu ñu natt noonu te du nangu yenn xeeti njaay yi nga xam ne daanaka carte la mooy ñu ne dañ lay jaay li ci biir boutique bi rek noonu nga jënd ko ci njëg sàngam te xamuñu loola nu mu demee dëgg-dëgg fu mu tàmbalee fu mu yem teewul nag ñu nangu yenn njaayi tubaab yi niñ koy defee nga xam ne doo ko dajji waaye dañuy bind ci kaw ne nangam moo nekk ci biir mel nangam boo déggee nañ ko waxee mbaa nga jàng nañ ko ca bindee te bëggi ko noona njëgg jaral la nga fay yow mi jënd nag boo dajjee maanaam boo teppee buwaat ba mbaa loolee ndekete melut nañ waxoon mbaa nañ binde woon ca kaw da ngay seet bu la neexee génn ci njaay ma ñu delloo la sa njëg bu la neexee itam nga wéy ca njaay ma suñ ko dajjee nag tam mel nañ waxoon mbaa nañ binde woon nag faaw doo sañ a bañ doo sañ a xàcc yow muy jënd lu may nag kookaa la baaxee nangu laa xàccal xam ne rëccu nga mu jekki-jekki may la nga génn ca jënd ga loola moom baax na kuy jaay loo xam ne moomu ko te boroom joxu ko ca ndigal moom moo jekki-jekki di jaayee fi jaambur rekk su jaayee ba àggal te dara rawagut su boroom ñëwee lañ ko wax ne ko lii yaa ko moom kii jaayee na ko njëg gii bu la neexee nga wéyal njaay mi ndegam njëg gi baax na ci yow bu la neexut ñu daal di dindi njaay mi ndax yaa moom say fukki sañu koo jaay ba tey ku jaaxle dem tayle alalam keneen kooku lebal ko bor kookee leble bañ tayle ko lu mel ne ab montar mbaa rajo mbaa leneen na xam ne loolee ñu ko tayle sañu koo jaay day bàyyi su ko kooku fayut ba yoon seet ne waris naa jaay loola yoon a koy jaay su fekkee ne fay na ko ci borom tam des lam des mu delloo ko jëmm ji jaaxle woon ba ñëwoon di lepp waaye moom mi nga xam ne moom lañ tayle dara ak lu mu mën doon daal suñu te jekki-jekki jaay loolee ñu ko tayle bu fekkee delloo ba mu war a fayee bor bi ak seegul daal suwaay ji jaayee lañ ko tayle woon bu ko neexee ñu dindi njaay ma delloowaat tay la gën a meloon ñëwee nag ba àgg ci dele ba nga xam ne ci la war a faye bor bi ataka bi ci yoon nag muy àtt seen diggante ca na mu ware àttekat ba moom bu waree jaay loolee ñu tayle woon dana ko daldi jaay te bu fekkee ne ëpp na bor ba bu fayee bor ba la ca des da koy delloo ka moomoon loolee ñu tayle woon jamono ñu taalif téere yi booba ak njaam dafa xewoon te yaatu lool mu daldi ne bu fekkoon ne ab jaam dafa tuur dereti keneen waaye nag teyu ko kon dañuy wax ka nga xam ne moomam jaam ba ne ko bu la neexee nga yëkkati jaam bi jébbal ko ki nga xam ne moom la jaam bi tuur deretam te su boobaa sa jaan wàcc doonte sax jaam bi du mat lam ko war a fay ci deret jooju ñu tuur bu tee rek boo jébbalee jaam bi moom sa jaan wàcc ndax lañ daa wax booba naa alxabdu fii ma janaa ba tey bu ko neexee nag mu seet la nga xam ne moom lañu war a fay ca deret joojee jaam ba tuur moom borom jaam bi mu daal di koy fay ba mat téye nag ab jaamam loolu it kon kenn du ko ci wax dara bu fekkoon ne nag jaam ba tuur gam tuur dereti jaambur lu mu tay la kon dañu war a fayu ci moom ndax bañ bu ëllëgee mu def ko keneen am na nag yoo xam ne deesu ko fayantoo ci diggante gor ak jaam ci jamono yooyee amee teqali gor ak jaam waaye ci misaal jaam tey bu rayoon as gor te tey ko mën nañoo fayu ci moom rey ko ndax moom daa rey koo xam ne moo ko ëpp daraja ndax buñ ne gor mooy koo xam ne mësta xeex lislaam buñ ne jaam nag ci jamono mooy koo xam ne ñu ko wowoon ci lislaam mu bañ yooyu batiku ne ko del joxe li ñuy wax galak xawal mbiru lempo bàyyi lislaam doxal na mu bëggee dañ bàyyi la ci li nga nekk mu bañ ñu xeex ak moom jàpp ko gañe ko jàpp ko jaam loola moo daan doon jaam kooku nga xam ne nag jaam la ci gis-gisu lislaam duñ ko yemaleeg gor ndax gor mooy koo xam ne mësta xeex lislaam soqtewul ci ku doon xeex lislaam ba mu wàllu ko njaam gi nga xam ne bu fekkoon ne gor sa moo rey jaam ba moom kenn du fayu ci moom dañuy seet rek lay xaymay jaam ba mu fay ko ba noppi ñu dóor ko téeméer yar tëj ko at rek moom gor si def loolu waaye duñ fayu ci moom rey ba kanam na mu def jaam ba jaam ba nag bu fekkee ne moo rey gor sa moom bu neexee ñuy lif gor soosee ñu rey ñu taxaw ci daldi rey lu jaam ba ngir fayoo ko kooku mu rey ndax daa rey koo xam ne moo ko ëpp daraja bu ñu dee weccee wurus ak wurus mbaa ñu weccee xaalis ak xaalis te ñu bokk wenn xeet ni ki CFA ak CFA wala dollar ak dollar weccee ga ëppante waru caa am buñ nangu rek kenn toog ci buntu jumaa ji wala ci buntu jàkk ji yore weccet bu bare bari ku dikk te yàkkamti bëgg a wecciku mu wecc la mu wecc la am loo ko ca tegal ndegam moom xaalis ak xaalis la mbaa wurus ak wurus la te benn façon bi rek la buñ ko dee weccante daa war a yem képp tam nekk loxo ak loxo du ëppante muy ribaa bu ca yeex amee kay joxe te kay joxewul fa saasay saasa ba tey muy ribaa bi xasee wuute nag ni ki les xaalisu CFA la les beneen xaalis la wala les dollars la les rial la su boobaa mi leen neex jëflante ca wecc ku ba loolu moo tax nit mën naa amee méccam di weccee xeeti xaalis yi rek muy méccam waaye na sàmmoon teg rek na xaalis yi wuute mooy tax ëppante mën ca am na xaalis yi wuute ba noppi itam wecc konte ba di loxo ak loxo maanaam buñ fàtte ne bu xaalis yoo wuutee moom mën nañu ëppante ca nañu wecc konte waaye nag faaw rek loxo ak loxo teg ci loxoom mu teg ci loxoom la war a doon xeeti ñam yi itam lépp loo xam ne mënees na koo denc di ko dundee ci mboolem xeeti ñam yi la dale ci ceeb ak pepp ak mboq ak lépp loo xam ne xeetu ñam la buñ mën a denc di ko dunde mbaa boog du ñam waaye dañ koy defa rek togg biñ dee togg te it mënees na koo denc te du yàqu loola bu ngeen ci dee weccee maanaam dañ koy tuddee bu ngeen ci dee jaayante waaye weccee lay doon mooy ndegam wenn xeet wi la la nga koy jox ak lam lay jox daa war a yem kepp-kepp bu ëppantee ëppante ga nekk riba bu ci ak yéex amee kee joxe te ke jëfewul fa saasa mu daldi doon riba ci misaal xeeti ceeb yi xam nga ne wuute nañ lool ay njëkk waaye tey duñ nangu nga amee ceeb bi nga xam ne mooy yemaay ñëw jox ci borom bitig bi fukki kilo moom mu jox la juróom mbaa juróom benn mbaa juróom ñaar li ngay mën kay mooy da ngay jaay sa ceeb bi nga xam ne mooy yemaay dem jënd nag lu tolloog moom ci ceeb bu piire ba nga xam ne moom nga bëgg a jënd waaye jàppal ne nanguwuñ nga yore benn xeetu ñam bu yemaay fekk nag ka nga xam ne moo yore qualité bu féete kaw nga jox ko ko mu jox la lu ko yées moom daal ndegam aw ñam la wuñ mën a denc di ko dunde mbaa lu ñuy togge la man koo denc di ko dunde bu fekkee la nga koy jox ak lam lay jox wenn xeet wa dong la amuñu genn wuute kon daa war a yem képp la nga koy jox ak lam lay jox yem dong tam nekk loxoog loxo fi saasay saasa bu dee yaari xeet yu bokkut nag mën nañoo ëppante ndegam xeet wi nga koy jaay ak wa mu lay jaay duñu benn kon nangu na ëppante nu ñu ko bëggee rek mën na naa ëppante waaye ndegam xeetu ñam la nag na nekk loxoog loxo duñ ca nangu ak yeexe kiy joxe te ke joxewul fa saasa du fekkoon na it day wurus ak xaalis xam ne ne wurus moo gën a foor lool xaalis kon buñ doon jaayante di jokkalante kay joxe wurus kay joxe xaalis moom dana nangu ëppante bu baax a baax waaye du nangu yeexe mooy kee day joxe kee joxe fa saasa waaye du nangu kii joxe te kenn ko joxewul fa saasay saasa lu mel ne ndoxum ñuul nag boo déggee ndoxum ñuul mooy ndoxum ordinaire rek ndoxum kese moom moo xeeti lekk yi nga xamee ne mëneesu koo denc di ko dunde biñ ko dencee mu yàqu ni ki xeeti furwu yi yooyu moom nangu na appante lam nangu koy mooy yeexe nangu nañ nga jox ko ndoxum taw genn paan moom mu jox la ñaari paan ci ndoxum robinet bi waaye nag na nekk loxoog loxo ba tey lu mel ne xeetu pomme ak orange ak mandarine nag mboolem xeet doom yooyu nga xam ne nanguwul denc déey mi ngi ko dencee mu yàqu mën ngeen caa weccee qualité bee gënal la kee qualité bee gënal ko ba noppi na ngeen di jokkalante ëppante waaye nag ba tey na nekk rek loxoog loxo jàppal ne jaay ñam jënd ñam moom faaw daa war a nekk loxoog loxo loolu takk-takk la bu yaatoo yaatu maanaam la ngay jaay mbaa nga di ko faye muy njëg waroo caa xam benn sikk ba noppi nëbb ko bañ koo wax ka ngay jëflanteel lépp loo xam ci li ngay jaay mbaal ngay joxe muy njëkk ci xeetu sikk danga ko war a wax bu doonee sikk soo xam ne bu ko kooka xamee daal di bàyyi du jëndati mbaa boog njëg gëm ca doon fay da koy daal di wàññi sikk su mel noonu araam na kiy jaay wala kiy jënd xam ko ca la muy jaay mbaa la muy fayee njëg te bañ koo wax ne bu dee loo xam ne day màttee ka ñëqi ci misaal ni ki fas wala mbaam boo ko dee jaay itam fekk day màttee ko wéqi war ngaa xamal loola kay jënd bu dee day bañ boo ko dee liggéeyloo war nga ko ko xamal moom daal lépp loo xam ci xeeti sikk loo xam ne xam nga ne kay jënd bëgg ko ci rek bu ko xamee benn mu bàyyi bañ a jënd mbaa dana wàññi njëggam ca naroon a fay loola araam na yow mi jaay nga nëbb ko loolu nag wuute naag aaday jaaykat yi ndax daa mel ne loolu gàttum xel lañ koy jàppee di jaay ba noppi di wax sikk sa mel ne bëggoo mu jar waaye fekk na ci yoon moom kenn sëñ di jaay di ci nëbb dara ci sikk alxishu dafa yaatu lool mooy jaxase lu piire ak lu piirewut ñu koy muy ne léegi fals bi ne nangam fals la rek mooy du piire ba boo dee jaay loo xam dafa am lu piire am loo xam ne fals la da nga koy leeral ne ko lii kat fals la bu bëggee jënd bu bëggul bàyyi li nangu itam nga jaxase yaar yoo xam ne lee dafa piire lee piirewut wala ngay jaay am loo ci yokk ci leneen lu ca bokkut ndax bëgg mu bari mel ne muy jaay meew yokk cam ndox wala mu defare ak lem ci tàndarma ba noppi di ko jaay ne lemuk yemb la wala mu amoon am pepp mu yemaay mu larax larax dem boole kook mu rafet di ko jaay wala mu am mboq mu rafet rafet boole kook mboq mu yemaay yemaay di ko jaay loolu lépp luy nuru naxe googu rek dañ koy araamal lool te diisal ko man rochana falay sa min naa noonu la ko addis ba waxee balxu naj si moom addis ba da koo aaye mooy yow naru laa jënd ba noppi di yokk prix ba di yokk njëg ga kii ñëw di waxaale fay téeméer yow nag nga ñëw fay téeméer ak ñaar fukk mbaa téeméer juróom fukk te yow naru laa jënd man naam dangaa kompaloo kay jaay nga xam ne ku dikk rek nga def noonu moo xam amuleen ak kompaloo moom daal moom daal ndegam yow naru laa jënd rek waru laa yokku njëg kon bay xu najj si mooy yokku njëg ca waxaale wa te yow naru laa jënd dangaa bëgg a nax keneen moom ba mu fay lu ëpp lañuy jaaye loola maanaam ñuulal bi jaaw mbaa xongal ko ne fuddan jamono yi jaam amee dana araam ngay jaay jaam boo xam ne daa màggat ba bi jaaw nga daal di ñuulal nag kawar ga ba ka koy jënd defe ne gone la du màggat loolu rëccu la lu araam la bokk na ci yi araam ci wàllu jëflante ci njaay itam mooy kiy jënd ñëw nga jox ko mu toog yaatal ko mbaa boole ca jox ko gura mbaa jox ko café mbaa jox ko ataaya mbaa daal leneen nga xam loolu day tax gannaaw ba ndegam day jënd rek daf mën a weesu faaw yow lay jëfalanteel jënd ci yow ba noppi nag mën nga koo jaay njëggu gën a seer loolu lu araam la duñu wax ne publicité araam na dañuy wax publicité dagan na ci kaw la ñuy wax ci njaay ma yépp yépp nekk ca waaye day araam ñu wax ne li ñuy jaay nangam la baaxe nangam la mel te fekk na dañ koy wax rek ngir jaay waaye demewul noona kon ñu takk foofu ne sañes naa yëgle am njaay sañes naa yëgle am njaay ak nu la neex ci yëgle ga waaye nag la nga ciy wax lépp nay dëgg dara bañ caa deñ dana araam muy wax ca njaay ma ndax bëgg jaral rek mbaa bëgg njëg gu bari rek di ci wax loo xam ne amut rawante na la ñuy jaay mu ne ñu bind ca prix boo xam ne dañu wax ne prix fixé la te fekk na loola du njëgam daa bëgg rek ku dikk di jënd xam ne bind nañ lii benn bu dee ko yàkkamti mbaa muy ko wala muy koo xam ne day yaakaar ne prix bu ñu xës fixé rek amul waxaale mu daa ñëw rek daal di fay daal di dem lu mel noonu lu araam la teewul nag sañes naa seet njëg nga xam ne moom la loolay jar te lu yàgg-yàgg moom dee su ko jaayee lu ko yées mbaa kooku ko jaay it dangaa defal kooku rek mu baax waaye loolaay njëgam nga bind ca ne lii lay jar xam ne ku ñëw rek bu bu bëggee jënd bëggul dem loolu moom baax na waaye nag bind ci njaay ma njëg goo xam ne bokkut ak gam war a jar jublu rek ku dikk jàpp ne li la war a jar bu dee koo xam loolu la xam daal di fay fi saa sa dem wala mu bind foofa njëg gu baree bari goo xam ne ki ñëw te xam ne njëg ji ma des na ko waxaale it bu dee waxaale lu mu fay fay fay fay te lu jaaduwut ndax lañ bindoon ne mooy njëgg dafa soreet lool lam war a jar loolu lépp lu ñu moytu la lu araam la wax ki jënd njëg gu jaaduwut goo xam ne moom lu mu fay fay rek fay lu jaaduwut ne ki lu jar téeméer mu ne ko juróom-ñaar téeméer lay jar loolu bind ko ak moom mi jaay mu wax ko ci làmmiñam koy jënd di dégg ñoo yemoo lu ci nekk nax gu réy réy la lu araama araam la yépp dañ koy boole ci alxichu bi ñu waxoon alxichu te addis boo waxoon ne man rochana fa laysa minna ay laysa xala sunnatina wa tariqatina ki jaay moom war nay moytu feeñal dara ca la muy jaay loo xam ne kay jënd bu ko gisee defe ne na mu bëgg noona la njaay ma demee te fekk na demewul noona ñàkkut ay naafeq yoo xam ne moom la làq ca biir loolu moo tudd alxësio bi ñu doon wax léegi kii jaay sañuta nax kay jënd ci def ca njaay ma mbaa yokku ca mbaa wàññi ca loo xam ne kay jënd day defe ne na mu taamoo rek la njaay ma mel te fekk na melul noona ku koy def nag ban xam ko ca moom gis mu def ko defati ko bu fekkee yoon a ngi dox dañ koy yar yar ba nag benn tëj kaso mbaa ñu dóor ko mbaa ñu dàq ko ca marché ba ne ko doo fi jaayati loola àttekat ba moo koy seet ñu bañ a fàtte lañu waxoon ne buñ dee weccee yaari ñam buñ nee ñam jubluwuñ ci luñ togg ba mu ñor lépp lu ñu denc man koo dunde te du yàqu rek ki ceeb ak mboq ak yu demee noonu buñ ko dee weccee nga xam ne lee mboq la lee mboq la lee ceeb la lee ceeb la ñu di ko weccee dafa war a yemoo képp képp képp ak lu benn ba foor foor ak lu benn ba yemaay yemaay buñ nangu kenn ka jox moroom lu ëpp lam koy jox mbaa kenn ka dolli moroom ma xaalis ndax lam gën a yemaay le ki jigéen ñi kuñ ci jox njël ci kër gi li ki ceeb nga dem bëgg ko wecc ku beneen kala koy wecci doo ko mën a dolli dara ci xaalis duñ nangu it mu jox la lu yées li nga koy jox ndax ne yaa yore bu yemaay bi nga xam ne kon duñ nangu sax nga dolli ko xaalis ndax mu jox la qualité bu gën baa baax te nangu qualité bu yemaay bi nga yore loolu nag dafa ñëw ci addis ba te leer lool moo tax ñu koy baamu di ko fàttalee ba tey ñu bañ a fàtte ne bu ñu nee nàngam araam na ku ko jaay mbaa araam na ku ko jënd duñ nangu nga luye kenn fa mu koy jaayee di ki bu ñu nee sàngara wala cigarette ak yu ko nur dañoo araam doo mën a luye kenn fa mu koy jaaye doo ko mën abal sax ngir yàlla rek noonu ndax li noo digal dimbalante ci def lu baax tey moytu dimbalante ci bakkaar wa taxaawanu alal birri wa taqwa wala taxaawanu alal ismi wal udwaan àgg na sax ci su fekkee ne kooku jaayut waaye lu muy liggéey yoon da koy aaye mel ne defarkati bopp yi defarkati bopp yi la ñuy def la ci ëpp lu ñuy aay la su fekkee ne defar bopp ba wat lay doon te góor di wat góor te wat ba benn day maase set wecc wala buñ dee jemp itam jemp ba maase loola dara nekku ca waaye dañuy bañ nag wat pegg yi bàyyi fa ca des wala kooku amutoon leel ñu wat ko watin woo xam ne dañ koy wutal ay leel loolu dañ koy aaye te itam moom góor gi wat du sañ a wat jigéen ndax jigéen araam na mu watu nel balaa jëmp itam day fekk mu nekk ci jaamu yàlla ak aj wala humra ñu dul ko jëmp mu jëmp jëmp bu gàtt kon kenn du mën a defaral jigéen boppam ci kaw wàññil ko ko jëmpal ko ko ci ludul dara mu la cay fay dara doo ko sañ a defal rek sax noonu ci bëgg-bëgg ma doo ko ca fayu dara mook nga fayu ko ci ñooyamoo doo ko sañ ñu seetlu foofu ne góor ak jigéen bu fekkee sequñu ab sëy bu ca kenn defaral moroom ma boppam buñ dee ñaar ñuy sëy nag ku ci ne mën naa defaral moroomam boppam bu dee jigéen yi defar bopp ba mel na day létt te di ca dolli yeneeni wëñ mbaa yeneeni kawaral mu daal di bokk ci lañuy aaye bu wér a wér ñu mel noonu kenn du leen sañ a luyee fa ñu koy liggéeye kenn du leen ko mën a abal sax ngir yàlla kon ci gàttal rek kuy jaay lu ñuy tere doo ko mën a luye mbaa abal ko fa mu koy jaayee doo ko ko mën a transporteel doo ko mën a sëfal di ko jëme fenn ba tey kuy liggéey itam te liggéey ba muy liggéey yoon da ko aaye kenn du ko sañ a luye fa muy defee liggéey ba kenn du ko sañ abal rek sax noonu bu bëggee jël ay bagaasam dem feneen nit kenn du ko ko sañ a sëfal moo xam day fay moo xam du fay loolu ak laabirante la ci wàllu diine mu jàll fan tollu woon loolu daa bokkoon ci ribaay yu njëkkoon lislaam mooy ka amee bor bi àgg nañ ci délai ba mu ko war a fayee benn mënta fay mbaa boog mën naa fay waaye daal ki mu amel bor bi juboon naa moom ci toppalal ko délai bi te moom it mu yokkal ko na bor ba tollu woon mel ne mu ameloon ko junni war ko koo fay ci bu weer wi dee weer wi dee nag kooku mënta fay ñu juboo ci jàll ba beneen weer toppaat ci te mu yokkal ko ca bor ba ñaari téeméer xam ne junni la woon léegi day soppiku junni ak ñaar téeméer loola mën nañ koy topp di ko topp ba mujj bor ba bari lool loolu bokk na ci libaay yi gën a aay bokk na ci li ñuy aaye mu ameeloon ko nangam ci bor mu bëgg a jubóog moom nag ci ñu soppi ko leneen lu bokk ak loola tey du ko ko jox fi saasay saasa mel ne baykat bi ameel borom bitig bi bor te bor bi nekk xaalis ñu bëgg a juboo nag ci mu bañ koo fay xaalis te bàyyi ba mbay mi ñor lam ko waroon a jox ci xaalis mu jox ko ci lam doon bay muy gerte mbaa sëb mbaa leneen loolu la ñu tuddee fasxu day ni bokk na ci ñi araamal mooy nangam la ko ameeloon ci bor ni ki xaalis ñu soppi ko leneen lu bokk te xaalis ba noppi nag mu jëm dele nga xam ne du ko ko jox fa saasay saasa